am na way laago yoo xam ni tey ñu ngi ci mbedd mi di yalwaan ñooñu dañu exposé ñooñu risques yu mag lañu am pour jël feebar bi loolu moo tax ñun ñi leen jaboote ñu bëgg a wax ne kilifa yi ñu bàyyi leen xel ci stratégie yi nga xam ne ñu ngi koy def pour aar askan wi bu ñu fàtte ni senegal téeméeri yoo fi jël fukki yi ak juróom dañu amee laago donc ñooñu bu ñuy aar askan wi war nañ leen a ci li ñuy def naam sax am na effort yu am solo yoo xam ni gouvernement bi mu ngi koy def ndax ñëpp gis nañ ministère de la santé buy def communication ci feebar bi am na koo xam ni moo koy frie ci langue de signes loolu pour may suñu mbokk mu may ñu xam li ñuy wax lan la ba mën a moytu loolu ñu ngi koy rafetlu waaye di ñaan tamit ministère bi mu gën a dolli mu gën a dolli loolu muy def noonu ba handicapé yi gën cee gis seen bopp di xamal askan wi yëpp ne ñun fédération Sénégal des associations de personnes handicapées ànd nañ ci ndogal yi nga xam ne yëpp kilifa yi jël nañ ko ngir aar askan wi waaye ñun dañuy fàttali rek ne ci askan wi am na ci ñoo xam ne dañu amee laago te dañ leen na war suuraale loolu moo tax fédération bi bëgg a jël ay responsabilités am xol li nga xam moy ak ak yelleef way lago yi nek ci loi yi ak ci convention yi fas def ay action jëmele ko ci protéger ñi amé lago action yoyu moy dajalé ay dons dajalé ay euh bagages matériel yi nga xam mom la nit ñi di euh, euh, fagaro lu melni masque lu mel ni euh, alcogel lu mel ni yeneen produit antiseptique fexe wàcc ci mbedd mi fekk way laago yi fa ñuy nekk di yalwaan ak yooyu ñu jox leen ko ñu mën a aar seen bopp aar tamit ñuy jëflante ak ñoom fas nañ yéene tamit dajale ay denrées alimentaire lu mel ni dund parce que kenn xamagul feebar bi fi mu jëm li tubaab di wax confinement mën na am ñu dem ba ci jëmmi jamono ñu ne bu kenn génnati waaye ki nga xam ne bu génnul du am lu mu yóbbu këram kooku boo ko tëjee tamit foog ñu wut loo xam ne dañ ko ko jox pour mu yor ko këram man fa toog loolu tamit fédération bi fas na ko yéenee def fas nañ yéenee def aussi dem wàccaat ci ñoom waxtaan ak ñoom yee leen ci feebar bi yee ci seen i njaboot fàttali leen taxawaay yi nga xam ne moom la war a jël ci wàllu cet gi ba mën a aar seen bopp aar ñi mën a jëflanteeg ñoom loolu ñu bëgg a def yëpp nag doole jooju yëpp fédération bi amu ko suñu doolee bariwul li ñu am bariwul loolu moo tax ñuy ñaan muy gouvernement bi muy bépp sénégalais ak bépp bonne volonté bu ji mën a jàpp nga jàpp ci ñëw ci fédération bi bu dee produit la bëgg nañ ko bu dee denrée alimentaire la bëgg nañ ko bu dee masque la bëgg nañ ko bu dee alcogel lu mu mën a doon rek luy aar nit ñi bëgg nañ ko ñu indil ñu ko ci fédération bi ñu dajale ko wàcce ci mbedd mi jox ko euh, sunu mbokk way laago yi nekk ci mbedd yi bu ko defee ñu man leen a aar aar askan wi fexe tamit ñun indi sunu contribution ci arrêté bi nga xam ne war nañ ko arrêté virus bu bon boobu di circuler ci réew mi